Euh, ñuy dalal tey euh, Serge Sadio jiite fédération des acteurs de la filière avicole euh, fii ci Sénégal ñu lay nuyu di la dalal ci mi FM. maa ngi leen di nuyu madame di la nuyu di nuyu seen auditeurs yi. Mhm. sëñ bi ñu gis ne jamono ji yëngu-yëngu yi bëri na ci ñi nga xam ne ñoom ñooy yëngu ci secteur avicole bi ñu bëggoon a xam lan moo waral coow li yëpp. waa coow li yokkute yokkute yi am ci aliment volaille aliment jur gi. mooy ak euh, aliment ganaar yi njanaaw yi mhm. donc loolu moo indi yëngu-yëngu yi yëpp li ñuy wax ni comme information li tax yokkute yi mooy guerre bi am an Ukraine parce que aussi lu ci ëpp si mboq bi ñuy consommer ci aliment voilà ci industrie yi defar euh, yiy togg aliment bi mhm. lu ci ëpp Ukraine lay jóge wala Russie mhm. donc ñuy wax ni rek loolu ñun lañ ñu tegal comme discours waaw mais ñun aussi ñuy wax naan bon entreprise boo gis muy dox da ngay constituer da ngay def stock. Mhm. da ngay def provision. Mhm. mais loolu pour lan pour que tout simplement boo amee problème nga mën a régler nga mën a nga mën a euh, teg problème yi ci ndëgëndiku en attendant ngay mën xool yeneen solution pour mën ci génn. Mhm. mais ñun li ñu remarqué mooy que aussi moom c'est systématique bu ñu ne prix yokk nañ ci biti wala semaine bi ci topp yokk Sénégal bu ñu ne tiib yokkati na may wax ni rek depuis deux mille vingt et bi juróomi yoon lu mu gàtt gàtt juróomi te yokk yooyu yëpp fi mu toll nii bu ma ko xaymaa su ma dina war a presque benn trois mille francs maanaam njëgu benn ginaar donc loolu dafa dafa nekk ay yokkute yoo xam ne euh, yi nga xam ne dafay permettre problème yii nii ñu bañ koo ñu ñu ñu bañati ko dund. balaa ñoo dugg ci ci loolu yaa ngi wax ci say biir wax guerre Ukraine bi tudd nga ko mm-hmm. mu mel ni gëmu leen ne loolu rek moo waral yokkute yi ngeen di gis. Euh, muy gën di bëri. waaw gëmuñu ko parce que tout simplement c'est vrai que guerre bi indi na yëngu-yëngu ci filière agricole bi. Uh-huh. mais di wax ni rek Ukraine ak Russie du ñoom kese ñooy produire mboq bi ak blé bi ñuy soxla. Brésil Brésil da koy def Inde da koy def même bu nekkee dëkk yooyu tamit tey am nañu yeneen am nañu am nañu seen maanaam am nañu seen i problème. léegi ñun li ñuy wax mooy ñun gisuñu ay jéego yi nga xam ne teg nañ ko fii autorités yi teg nañ ko fii pour que aussi bu nekkee dañuy importer dix ñu importer benn bi ci des ñu ñu liggéey ko ñu ñu fexe ñu koy amee fi réew. ñu am ko fii ci réew loolu mooy doxal filière loolu mooy doxal sëkk et puis may wax rek filière avicole dafa nekk benn filière bi nga xam ne mhm. gis nga bu filière bi doxee. Mhm. forcé mbay yàpp ginaar bi day dox mhm. loolu ay liggéey la xam ne yu yeneen yu muy créé ci ginnaaw. waxatuma la liggéeyu abattoir yi nekk ci ginnaaw waxatuma liggéeyu chaîne de froid pour conditionner ginnaar beeg yu mhm, mhm. transport bi ci donc loolu yëpp. su ci nekk moyen bu ci nekk dispositif bu ci nekk day créer junni junni junni liggéey. Mhm. waaw mais loolu waruñu seetaan muy nax saay. Mhm, mhm. yokk bi tey euh, justement euh, fan la toll fan la jógee ak fan la agsi. yokk bi bi ñuy yokk deux ngi woon ci aliment bi ngi nekkoon ci quinze mille et tey jii sac bi mi ngi jege pratiquement vingt mille su ko rombul déjà parce que man ñu ngi may wax ni Thiès am na ñoo xam dañuy jënd aliment bi vingt et mille ba mais ñuy wax ni rek loolu dafa xaw a jéggi dayoo mënuñu bu ñu ne prix bi yokk na ci biti ci ëllëg sa wala ci semaine bi ci tegu mu yokk Sénégal. Mhm. parce que aussi entreprise buy dox toogoon nañ fi aliment doxoon na loolu doxoon na ça se vendait très bien. ñu dañ soxla duñ ko gis. Mhm. wala mu nekk ay problème wala ñu nekk wala mu am benn spéculation bi nga xam ne moo ne ci biir te man damay fàttali rek ca jëmmi jamono première hausse bi mu amee. Mhm. dama ne woon industriel yi ñi ñuy ci benn spirale inflationniste nga yore xaalis doo mën a jënd la nga soxla. wala mën bi du njëge mën mën mën eh, bi du mate. Mhm. donc loolu baaxul ci ci yéen tey si seen liggéey euh, justement yaa ngi koy wax njëg yi bu yokkee dina am répercussion ci prix ndax loolu wund na ne tey ñi koy jënd euh, bëreetuñu. bon ñi koy jënd ñi ngi bëri ba léegi mais li ñuy wax ni rek mooy produit bi moom bu matul bu bëriwul bu doyul pour ñëpp njëg bi day yokk. Hmm. te loolu lu waaw commerce du man maa ko wax. Mhm. waa mais léegi est-ce que jarul ñu xool ay pexe yi nga xam ne mën nañu permettre que njëg bi même bu nekkee day yokk ñun ñu mën a am la ñu soxla ci dëkk bi. Mhm. mais non njëg bi mi ngi yokk te en même temps la ñu soxla amuñu ko du ci yàpp ci du ci du ci nen. Mhm. bu waxatuma la nag liggéey si seen bopp liggéey pour liggéey yooyu yëpp mi ngi nax saay. Mhm. waaw mais il faut ñu teg ñu xool sunu sunu sunu ñu xool ni ñuy tegee liggéey. yombalal nit ñi yenn yenn affaire tey seen liggéey bi nan lay demee jëm ci nen bi cuuj bi ak euh, ginaar beeg aliment bi yooyu yëpp euh, nan ngeen ciy liggéeyee ndax lépp Sénégal ngeen koy amee. de sori xaar xaaju ñoo am lépp Sénégal. maanaam liggéey bi ni demee mooy maanaam dafa am ñoo xam ne dañuy jël nen bi. Mhm. nen bi nen boo xam ne dafa am dafa am jur. Mhm. dañuy jël nen bi def ko si seen i ay machine moom ñoom la ñuy wax accouveur dañuy def ko si seen i machine mu au de vingt et un jours mu génnee ñu tànn cuuj yi tànn yu góor ko ñu ko soxla. Mm-hmm. ñiy def pondeuse wala ñiy chair. Mm-hmm. ñooñu nen yooyu yëpp lu ci ëpp maanaam quatre vingt pour cent Brésil lay jógee wala maanaam bitim réew lay jógee. ok am na lu ciy jógee Brésil am na lu ciy jógee États-Unis am na lu ciy jógee Maroc. Mm-hmm. mooy dëkk yi ñuy gën a xam mais sinon am na yeneen dëkk aussi loolu benn la aliment bi tamit. maa ngi lay wax sànq trois cent cinquante mille tonnes dañ koy importer chaque année pour nutrition animale. blé bi waxee noonu. Mhm. sept cent mille tonnes. donc yooyu yëpp dafa nekk yoo xam ni maanaam même dix pour cent amuñu ko ci dëkk donc day poser problème. Mhm. donc day poser problème parce que bu amee choc. ci marché international maanaam bu amee yëngu-yëngu mhm. bitim réew rek yow yëngu-yëngu boobu gars yi la koy répercuté mhm. tout de suite da nga koy yëg waa léegi ñun yan pexe yan jéego la ñuy di bañ tey tey tey ñu xam mais loolu mënul continuer dëkk dëkk dëkk noonu mhm. yaa ngi wax ñu waajal suñu bopp ndax ñun suñu dëkk environnement bi permettre na euh, lépp li nga xam ne ñu koy jéegaane ñu mën ko fee am euh, je dirais que environnement bi war propice mais autorité il faut ñu def li war pour que environnement boobu gën a propice parce que filière buñ ko buñ ko buñ ko buñ ko liggéeyul de sorte que nga xam ne yow boo ci defee sa dërëm nga mun a am ñaar dërëm mm-hmm. wala boo ci defee sa juróomi dërëm nga mun a am fukki dërëm yu mel noonu buñ ko doxal noonu dëkk yoo xam ne mu loolu ñu ko fay liggéey mais dem foofu mm-hmm. dañuy dem foofu parce que aussi environnement bi c'est vrai am nañu ndox am nañu am naaj am nañu euh, suuf si mm-hmm. mais pour sénégalais yi may wax ma koy waxaat encore pour que sénégalais yi seen bopp mën a ci mën a ci mën a dugg ci porondool yooyu créer seen i entreprise liggéey dundal waa Sénégal au moins mhm. xanaa nag yar ginaar ba mu mat jël nen toj ko def ko cuuj jël tuj boobu yar ko ba mu mat ginaar teg ko ci marché bi xanaa loolu sénégalais yi mën nañ ko mhm. loolu mhm. jafewul te filière avicole bi démontré na ko à suffisance. sànq yaa ngi koy wax ne am na ci ñu bëri ñi nga xam ne tey jàpp nañ ne euh, des ci euh, liggéey bi jaralatu leen ko ndax euh, cher na lool lépp li nga xam ne moom ngeen di jënd dégâts yi ndax bëri na ndax ñi tëj seen i seen i nuñ koy waxee waxatee sax seen i poulailler yeeg yooyu bëri na. waaw loolu moom mën naa ko certifier mën naa ko témoigner ñi tëj seen i poulailler bëri na ñi nga xam ne amatuñ ci dara maanaam maanaam trois cent francs juróom fukk yi ci nit yi doon dàq deux cent nit ñi doon dàq ci ganaar bu ne loolu amatuñ ko hmm. loolu amatuñ ko ñu ci bëri ci ay bor lañ nekk ñi nga xam ne dañoo leboon banques yi tey fi mu toll nii banques yi xoj nañ leen hmm. ñi nga xam ni dañoo ameel xaalis euh, structure de financement yi bëri na hmm. poulailler yi mi ngi Hmm. donc nit ñi nit ñi gisatuñ ci mbopp maa ngi wax mais waxuma la sax entreprise nga xam ne ñoo toj ne nii ko def poussin mooy Acouveur yi hmm. waxuma la tamit ñi nga def aliment am na def aliment ku doon def def aliment parce que génnatu ci hmm. ne dañu doon nekk dañu client am dañuy dem ci keneen ko ci kooku ñuy dem kooku du mën a client yooyu parce que loolu loo gis rek ci biir filière muy industrie bi kii defar aliment mooy kuy def mooy kuy mooy kiy élevé prévision da ngay calculer ay affaires yooyu ba pare bala nga xam boo génnee sa produit mu wóor la boo génnee du des sa loolu yëpp gars yi ñu ngi jokkonteel problème yu mel noonu mais en même temps sunu autorités yi dese nañ leen yëg. ci problème yooyu la dañuy dégg ñenn ci seeni euh, confrères yi nga xam ne ñoo ngi ci secteur bi ñuy ñaawlu concurrence déloyale bi nga xam ne moo ngi ci biir secteur bi. Ah, tey ndax yow li ni mel ne meeku nga ko justement. waaw concurrence moom mënul ñàkk. <laughs> bu muy muy fii di bitim réew buñ ko buñ ko def buñ ko deful amit beneen ñëw day day ñoo def ko. mais ci tolloo doole. waaw mais ñëpp tolloowuñu doole la preuve juróomi baram am suñu loxo yi juróomi tolloowuñu. dëgg mais mënuma laa ba pare di la concurrence quand même. est-ce que yoon koy tere. Mm. man dara wóoruma ci. est-ce que yoon daf daax dara wóoruma ci. encore une fois di wax rek il faut nit xool lu ñuy parce que am nañu cadre boo nga xam ne ñuy wax noonu tey cadre boobu noonu noonu. Mm. mais nañ ko waxtaanee cadre boobu cadre boobu nañ ko muy IPAS. mooy interprofession agro silvopastoral moo ko sanc waaw mais cadre boobu pour loolu la cadre boobu bu ñu fa waxtaanewul mais fanaan feneen fan la ñuy waxtaane dañuy dóorante dañ ko waxtaanee ci cadre boobu dooleel cadre boobu xool nu ñuy déggoo parce que encore une fois ku ci nekk sa état ngay défendre ku ci nekk sa intérêt ngay défendre. Mm-hmm. tey certainement am na ñi nga xam ne euh, cadre bi doy ba mu jaral leen ñu wax ne ay concertation waxtaanee ko. Euh, voilà xam na ak autorité yeeg euh, président de la république lool lu war la lu mën ta ñàkk la jamano ji ñu nekk nii ndax ànd nga ci. mais waxtaan kay moo moo lan lépp xeex bu mujj lu ñu xeex xeex bu ñuy mujj rek mooy ci ci table de négociation bi balaa ñu commencé ko foofu. Mhm. nañ ko waxtaanee mais cadre boobu encore may encore une fois may wax foofu la ñu war a waxtaanee donte na on est on est en démocratie lu waay neex def lu waay neex wax mais aussi c'est bien ñu toog waxtaan. waxtaan entre aussi de de des gens waxtaan aussi ci ak ay waxtaan ak xel ak sunu xel. Mhm. c' vrai que nag métti na pour ñëpp fi mu toll nii ñëpp métti na pour ñoom parce que fi mu toll nii ginaar yomb ci yàpp. Mhm. mais fi mu aussi ginaar toll na ci njëg bi a xam ne Sénégal vraiment métti na mhm. Euh, tey ji état taxawaayam justement sànq yaa ngi koy woo ngir ñu euh, def benn cadre bu propice pour permettre environnement bi ngeen mën cee def seen liggéey mais tey ndax gis nga engagement ak volonté am euh, ngir taxawu leen. waa bon ñun engagement état franchement dañ des na quoi des na des na et puis seen affaire dafa yéex nañ ko wax seen affaire dafa yéex gaawuñu dara dara dara dara dara. parce que aussi li réalité filière avicole bi lii réalité léegi nii nii mm. bu ci interview bi boobu day changer Mm-hmm. donc ñun ñu toog fii war a liggéey jox liggéey jox liggéey sénégalais yi dundal sénégalais yi ñu ne fii ci politique suba ak ngoon suba ak ngoon loolu daf ñuy taral yóbbuwuñu fenn on perd beaucoup de temps et beaucoup d' argent et beaucoup d' énergie dans cette affaire alors que li ñi dañ war a liggéey nit ñi dañu war a lekk entreprise yi ñu ngi tëj mais ñu fi toog politique suba ak ngoon politique suba ak ngoon politique kenn ci ñoom du la ci wax économie mais kenn nañu wax économie dëkk économie moo ko yor politique yor kon da ngay gis ne politique bi dafa maasali lépp daal tax ba ñu fàtte secteur yëpp daanaka. non politique bi dafa jéggi dayoo. de neuf mois sur douze dañuy politique Sénégal mais loolu doxul. douze mois war a liggéey mais neuf mois sur douze Sénégal dañuy politique waxu politique la ñu wax ci élection ñu ngi ci élection bu ñu génnee ci élection ñu ci élection mais fu ñu jëm nit ñi nañ liggéey nañ bàyyi temps jox ni ñuy temps on n'a pas que ça à faire il a du boulot les gens ont besoin de manger les gens ont mais dafa métti. ñu lay jaajëfal bu baax a baax sëñ bi Serge Sadio. Mm. maa ngi nga jiite fédération des acteurs de la filière avicole au Sénégal merci beaucoup vraiment.